boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo Cheikh Abdoulaye ta ko def du nit ku ñuul du ko weex di wàlli yokki yonen loolaa di lan moo di nit ñi ñëpp bàyyi lu bon te xam ne moo ko fi def bàyyi laat bëggul waxi neen doo dox lu mat kilomètre ci réew yi pacc yam te gisuloo nit ku tux ab malboro wala poon mbaa sax mu mànd ci ngeen jëf mbokk yi ni topp koon ci subaak léegi bi ñu bàyyi ko fële ci kër Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdou Lahat noo ngi fii ci kër Serigne Moustapha Mbacke mu Serigne Abdou bi ñu ñëwee gis ngeen siyaar yi nga xam ne jot nañ ko fay jël kilifa yi nga xam ne ñëw nañu nemmee si Serigne euh, Moustapha bokk ak moom bis ñu mën cee ràññee ku mel ne Serigne euh, Moustapha Mbacke ibnu Serigne Abdou Khadar ak yeneen i kilifa yu fasante ko waaye dama leen di bàyyi ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor commission culturelle bi communication bi ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ngir leeral ñu fan lañ ci toll sëñ Abdou Lahad bu ñu la bàyyee nga nuyoog bokki taalibe yi sëñ Moussa ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoog bokki taalibe yi eh, yan kàddu nga ñuy indil ci fii ngeen toll yéen ñi nga xam ne yéen encadré commission culturelle bi ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki istixaama ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di leen jaajëfal nag bu baax di rafetlu seen taxawaay ci yoon wi ndax wax dëgg yàlla l'islam bi ngeen fi woote ndax day mel seen moom li mu wund yéen a nga cee góorgóorlu bu baax a baax ñu leen sant bu baax a baax comme ni nga ko laajee ñuy màggal tey bisub Cheikh Abdou Lahad muy bis bu mat a fàttaliku ndax Cheikh Abdou Lahad moom jëmm la joo xam ni damay faral di wax ni euh, képp ku bëgg lu baax war ngaa fàttaliku bisam bii ndax bis la boo xam ne Seyxul Xadim radiyallahu anhu moo ko njëkk a màggal ndax koo xam ne bi nga feeñee sëriñ bi da caa wone mbégte def ci teraanga joo xam ne mosu koo defal la ko jiitu woon ginnaaw bi xamuñu ku mu ko defal daal di wax ne am naa ci moom yaakaar Eh, te kenn ku ne mën naa xam ni Cheikh Abdou Lahad yaakaar ji Sëriñ Tuubaa amoon ci moom matal na ko sëkk tey nag fii ngeen ñëw di kenn ci ak njabootam di Cheikh Moustapha Sëriñ Abdou Lahad di ko xam ni ni ngeen ko gisee rek yaakaar naa kër gi moom fa tabaarakallaa mat na sëkk yi tey ñun nag dañu dénk commission culturelle commission culturelle mooy saytu lépp lu jëm ci njàngum alxuraan mi njàngum xasida mi ak mboolem sëriñu daara yi ndax gis nañ taxawaay yi lan tàmbali seenub liggéey ñenn ñi tey ñëwaat ànd ak ñun ànd ak seen i donga nga xam fii ma wax yow nag dina amagoon ci lim kawe na njort lool lool lool te àggagun sax ci dajale lim bi yëpp yëpp loolu lépp nag day firndeel ni ki ñu koy defal mooy borom alxuraan ndax euh, lim liggéeyee Serigne Touba ci alxuraan ndax Serigne Touba moom la suñu borom jox alxuraan malakañul xuraanu tam lii kan yeddoom la wax yàlla moom la nam alxuraan moom ko sax dàkk waaye si Abdoul Ahad nag kenn ko ne xam ne Serigne Touba defal na ko ci xaas noonu itam nañu ko junjële ci jii ba yaatoo ban mën koo jariñoo waaye na ko sant si bokk na ko gën a yaatal def ci ay mool yu baree baree baree bëri mbokki taale bi mën koo jariñoo ñun lañ dénk fànn googa ni ko noonu tam bokk na ci suñu liggéey def lu mel exposition boo xam dañ koy def waxtaana ci lenn ci dundu Sëñ Abdou Lahad nga xam ne boo xoolee fee am na benn documentaire boo xam dundu Sëñ Abdou Lahad lañ ci def def ko ci wolof def ko tam ci français ni ko noonu tam euh, am na ay waxtaan yu am solo yoo xam dina am ci kii bi ci guddig màggal gi tey jii Sëñ Ahmadou Ndiaye ngiraan bu Daaru Xudoos nga xam yaakaar naa moom du ko ni présenté moom moo koy def thème bi ñu tànn nag mooy Sëriñ Abdou Lahad ak jom loolu li ci jublu nag mooy mbokki taalibe yi gën a xamaat ki ni màggalal waaye nag bu ñuy fàttali ko nit it caagi ni ñëw rek yéem ko ni Sëriñ Abdou Lahad kat jàmbaar la jàmbaar la waaye dëgg-dëgg mooy fexe ba roy ci moom fexe ba roy ci moom ndax mboolem yénte yi suñu borom daa jublu rek mbokki taalibe julli ñu roy leen ndax dégg nga ci alxuraan suñu borom wax ni laqad kaana lakum fii rasulillahi iswatun hasana kon daa def yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy a baax yi muy ñëpp ku rek dana ko andi ngir ñu roy ko ndax damay fàttali wax nit moom du baaxa baax ba jomb kon ba bu ñu fàttaliku Cheikh Abdou Lahad loolu rek lañ ci jublu euh, am na tam ay plateau yu ko jiitu woon ndax defoon nañ benn waxtaan ci média yi nekk noonu tam am na euh, waxtaan wax amoon na fi barki démb rek ci euh, biir kër gi te sëñ xaay di jaxate bu rabita jiite woon ko nga ni moom waxtaan am am solo andi ci dund sëñ Abdou Lahad waaye nag sëñ Abdou Lahad ak ni mu dunde woon Serigne Touba radiyallahu anhuma mu def ko tey jii noonu la ko fas yéene wéyale waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi siyaare mbokki tali bi di siyaare ñi sibir Istikhama TV yi di lañ jaajëfal bu baax a baax man la membre communication Thierno Diakhaté waaw communication wax dëgg yàlla ñun bi màggal gi dese ay fan di jours ci lañ commencé liggéey bi fexe ba def ay communiqué ci rajo yi RTS ICAP ak bépp information boo xam ne wër na jëm ci màggal gi ñu fexe ba jàll ko ay ay base wàllu communiqué ci rajo yi ak ak woote ci daayira yi ak ñi xam ne ñoo war a yëg màggal gi ñu yëgal leen ko mu ñu nekk bitim réew ak ñu nekk si sous-région bi biir Sénégal ñu fexe ba ñëpp yëg màggal gi mën a ñëw ci biir màggal gi wàccaayu màggal gi nag lépp luy communication ñun ñoo ko jàllale ci màggal gi muy nekk liggéey bu fasanti ko ba xam ne ñu bari si ay membre ak waa culture yi tamit bokk nañu ko di ko liggéey xam nga liggéey communication dafa dafa yaatu culture ci biir communication moo a ñu liggéey ci liggéey bu am solo ba ngeen gis màggal gi li fi am ci information boo xam ne jàll na ci rek waa communication ñoo ko jàllale muy wàllu affiche wala ay bâche yoo xam ne ñu ngi ko takk nii ci biir màggal gi muy rafetaayu màggal gi ñoo ko jox muy affiche yi muy ay ay autocollant yi ñu def ci oto yi ñi nga xam da nga koy gis oto yi ñu yor yi nga xam ne ci communication la lañ nekk ci wàllu organisateur ak wàllu transport oto yi nga gis ay autocollant lañ ciy def yoo xam ne ku gis loolu mu nekk liggéey bu fasanti boo xam ne bépp membre boo xam ne ci communication lay liggéey ak ci culture ñoo ko bokk liggéey ko ba nga gis taaraayu màggal gis ne ñuy sol ay silé bokk ci communication bi chaque année nag loolu la ñuy def ñu sant nag fédération Sahadatou Mouridina li xidmati Cheikhul Khadim seen taxawaay bu am solo ci liggéeyu màggalu Cheikh Abdou Lahad ci kër sëñ Moustapha Abdou Lahad mu liggéey bu fasanti ko commission yi bari ñoo fi nekk am na bétail am na cafétéria am na sécurité am na protocole am na euh, organisateur ñoo xam ne ñoo yor wàllu baas bi ak waañ wa mu liggéey bu fasanti ko boo xam ne ñun waa communication ak fédération boo xam ne mooy suñu njiit euh, membre yi nga xam ne commission yi nekk ci biir liggéey bi yëpp ñun ñoo ko am amee fii ñu leen contrôler képp koo xam ne da ñoo soxla wala xam yéen ñi nga ne ñëw ci biir màggal gi soxla liggéey si ñun ngeen di jaar muy communication muy liggéey boo am solo ku fi ñëw soxla nit wala am loo léer rek da jaar sa communication ñu mën la ko yëgal mbooloo mi ba nga sa yëf yooyu bu dee da am looy laaj wala fekkee ne da am loo xam ne da nga ko réglé muy xale wala wala sa portable wala lu mu mën demee rek da ngay jaar sa communication su ko defee ñu fexe na liggéey communication moom dafa yaatu yaatu ko wax lépp loo xam ne màggal gi rek communication moom moo ko yor ñi leen sant nag yeen Istikhama team bi liggéey bu am solo bi ngeen def si màggal Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad moom wax yàlla dafa nekk koo xam ne adduna bépp ko xam ci pastéefam ci dëggoom ci mbaaxaayam ci koo xam ne boo waxee ñëpp bàyyi la ngeen jàppoon kon nag ñuy ñaanal yàlla yokku leeram di ñaan nag sëriñ Moustapha Abdoulaye mi xam suñu yaakaari tey ëllëg yàlla suñu borom yàggal ko fi lool ak njabootam waaw ñu daal li ñuy wax nii wax di yàlla su xol lañ ko waxee ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal fédération Saxadatu Muridina li xitma de Cheikhul Khadim yàlla leen ñu gën am doole ba li ñuy wundu lépp li ko yaakaar si Cheikh Abdoulaye suñu liggéey mën a tasaaroo si àdduna bi yëpp kon dégg ngeen kàddu yi tukkee ci commission culturelle waaye dégg ngeen it kàddu yi tukkee ci commission euh, coordinateur bi nga xam ne commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu lu jëm ci wàllu coordination bi ñoom it seen communication seen i kàddu leer na lool macha allah kon ñu jaajëfal leen bu baax a baax dig daye ci yeneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatulah. kenn mës la laaj milliard ak genn wàll mu mat ci fukki fan tasa doom benn dërëm du ca foon diirub li muy dund doomam jenn mës la yilif benn tabax mbaab terrasse mbaa yàpp bu kii xam nga xoolul njaboot gi bàyyi tool bi mu booy koo gis demul soxna yaag doom yi ñoo ko dogoon maax la tuuti caag soppam sëriñ bi nga xam ni ab kemam amagul fii nag amul ci feneen kenn mës la laaj milliard ak genn wàll mu mat ci fukki fan tasa doom benn dërëm du ca foon diirub li muy dund doomam jenn mus la yilif boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fi ñu bind abonné bu leen fàttee bés fi ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyi bàyyikoo